genre bi genre bi teg dam laaj ci ginnaaw nu mu demee noonu secret boobu jox ñu ko boog ñu jox ci booyi tuuti. Euh, <laughs> d' abord maa lay maa lay euh, maa lay remercier di la encourager si. télé bu bees bi nga xam ne yaa ngi koy ubbi boobu ba léegi nag ñu waroon def ay affaire mais peut-être jot moo taxoon am. Euh, ma tegal ban graw tegal ma la ban yow xam nga ñoo fa tey ba pare def ci climatiseur. teguma la ban dama lay invité nga ñëw sama salle comme man léegi salle rek yëkkati yëkkati wañ rek laay def. mais mais mais Henri gis naa loolu quoi mais da nga am beneen discipline booy def da ngay box wala da ngay. nu mu demee noonu non boxe pour euh, maintenir forme bi la parce que xam nga gars yu bëri xamuñu lan moo tax mooy box. Hmm. boxe dafa baax si dafa baax si yaram quoi parce que euh, sport complet la quoi lépp lay lépp lay defar si. ak bijou bi ñu suñu président bi defal président de la république mu defal ñu benn looy wax ci loolu li président bi def. waaw bon président dañ koy dañ koy dañ koy ñaanal di ko féliciter parce que euh, def na lu def na lu rafet. parce que ñun footballeurs yëpp lii lañ daan rêvé am benn stade boo xamante ne euh, ñëpp dañu si dañu si ndaw quoi dañu si ndaw comme ni ñu koy waxee tey tey euh, stade bi moom ku ko ku ko gis rek man ci bon dama yàqamti dem xool parce que franchement ça fait plaisir parce que les Europe rek nga koy c'est te boo gisee Afrique dëkk yu bëri ñu ngi commencé progresser si côté boobu donc lañu ñaar yàlla ñu amal yeneen buñu amé amee ñaar war nañu mun organiser coupe quoi coupe de coupe d'Afrique mais mais football local bi parce que terrain yi ok mi ngi comme li nga wax non ak tay est ce que jotul tamit suñu football bi tamit suñu football local bi tamit ñu gën ci am manquement yi ci am ñu gën ci. ñu gën si taxaw waaw loolu tam ñu gën si taxaw mais nag boo seetee gars yi ñu ngi def jéego. ñu ngi def ay ay ay liggéey yu rafet. bon léegi da leen di ñaan rek ñu gëna continuer non quoi parce que yombul nak yombul mais gaay ñi ngi liggéey ñi ngi liggéey ñu leen ñu gën a pour gaay yi gën yokk liggéey bi parce que xalé yi tay am nañu chance bo xamanteni ñun amuñu koon ñun suñu jamono terrain terrain ay terrain suuf la terrain kekk mais tey moom macha allah booy ñu ngi koy gérer ah. donc euh, voilà yalla na yalla defal jam pour gaay yi gën a yokk yokk liggéey bi quoi pour boy mën a am chance tamit après nga xamné buñu démé Europe du ñu am problème quoi ah.

tay buñu ñuy dégg rek jaraaf la quoi parce que jaraaf moom moo ma yar moo ma moo ma defal lépp quoi ba tey su ma toll nii donc voilà. sa final bi nga perte en junior yéen ak Ndiambour. seetaan affaire final bi yow la yow la <laughs> yow la. nan la nekkee parce que yéen yéen a doon joué euh, deuxième deuxième heure deuxième deuxième heure donc yéen a ñu sacrifié. penalty boobu moo raté ba léegi tax moo raté. te en plus. Ah, penalty kon xam nga ni maa ne doon seetaan. non mais est-ce que xam nga maa ngi fàttaliku maillot yooyu ñu sol. ñu dañ ko simbi yéen ngeen solaat donc yéen ngeen gagné woon moo gënoon ñun ñu gagné. Ah. mais mënoon ngeen ñu gagné. Ah. mais est-ce que xam nga penalty boobu daf ma topp ba léegi. benn côté laa am man. <laughs> benn côté laay dóor. te côté boobu chaque fois saa yu ma ko dóoree rate mënuma dara si penal man ak saa yëpp. saa waay non euh, euh, préciser foofu yow ak man ak Sadio <laughs> benn côté la boobu dañ koy dóor mu dugg wala mu wala ñu rate ko rek. kon jéem waaw mais mais kañ nga may accordé kii bi benn émission spéciale Henri Camara parce que man dafa xam yu bëri dama xam xam nga sa papa moo ma jàngal. waaw waaw moo tax nag am na yu bëri dañ ko war a waxtaanee léegi dama lay jébaane fii nga wax ma. ñëpp a lay seetaan léegi noonoo non taxawal rek <laughs> léegi da may wax accordel ma ne ma d'ici un mois wala d'ici deux mois. un mois sax dafa bëri. Ah. parce que après après après tey bi mm-hmm. bon week-end bi damay voyager mais du ma yàgg. ay deux semaine lay def. Ah. mais su ma ñëwaatee rek mën nañ ko enchaîner amul problème. d'accord dinaa lambatu. waaw. d'accord waaw ah, d'accord d'accord merci.